chers internautes aujourd'hui nag mu nekk bés bu mag nekk nag le 29 février 2020 euh, ci woote nag nekk kenn euh, ci biir euh, Sénégal nekk doomu Sénégal di wuyoo nag ci turu Khadim Arba Mbaye tey nag ñu taxaw ak nga xam ne nag moom bokk na ci staff bi mais bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yor rëdd yu bëri bi ñoo yor affaire safa-saf yi nekk ci ginnaaw comme ay comment tu vas. Euh, tey lan nga ñu mën a wax ci événement bu mag bi ngeen dëgmal. moom xam nga ni événement benn benn yomb ba pare muy grand théâtre ku may def muy sama seex xaadim muy sama xarit di sama lépp damaa kontaan ndax ñun ñi ñu ngi duggee nii ma koy ñaanal yàlla lii luy ndig laayam ma koy ñaanal di fan yu wër fekk fu mu bëgg a egg si milieu yàlla def mu egg fa ba pare yéen gis nañ seen liggéey ndax affaire yi amee ba léegi toogu leen taxaw leen ndax bërki démb répété fa ngeen nekk ba deux heures seen liggéey rafet na waaw ma koy ñaanal nag lii mu jig ko ndax ku baax la man ak moom mun naa ne ñu am vingt ans ban ban dalee ànd ak léegi ba lii am ma ko ma ko si ñaanal yàlla réussite totale mais lan nga ñu mën a wax yow euh, lan ngay def ci biir percussionniste nga bongo man lan nga ci lan nga nekk ci biir li nga xam ne mooy euh, orchestre bi orchestre yi moom man nag kii laa si quoi parce que maa maay tëgg cóol bi maay tëgg sama cóol bi. mais lan mooy cóol xam nga nit ñu bëri xamuñu cóol bi ñu ñuy seetaan ah. du ko saa yi mooy def ay ay ay boo bëggee fecc boo naaw maa la yóbbu yenn saa yi moo saa moom bu wooyee lii ma ma tëgg ko lële ñu jiwala man ak moom waaw cóol daal dafa nekk loo xam ne mooy tëggal mbëri mooy tëggal euh, ñi nga xam ne dañuy da tax laabaan bu ñu loolu moo moo koy tëgg mbër bi biy tuus cóol bi mooy tëgg cóol bi moo mun bari na moom la mbéygee fay di tëgg fii si biir moom laay tëgg fii euh, mais mën nga ñu wax euh, depuis kañ nga commencé tëgg ndax doomu géwél nga war a dafa a dafa euh, loo xam ne c'est inné si ba maam sa maam maam les cuul moom day tëgg moom mooy président Sorano ba pare sama yaay day tëgg suñu waa kër ñëppay tëgg ba pare salaam jàll bi sama nijaay moom ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay sama kër moom damaa judd fekk fay sama sama yaay day tëgg sama raxu sama raxu yaay ñoom ñëpp dañuy tëgg famille bi jigéen ñi góor ñi ñëpp ay tëgg waaw ma judd fekk ko fa nag waaw c'est la famille. kon nag di ko wax nag bonne chance pour ce grand événement donc